Bienvenue sur Salam Vision. warul lana kulla si sahmin wa si haramin wa yassiran kulla si tahsirana awin lana umrana sarif lana madanan wa hab lana rusda wa tawfiq lana wa dammiran kulla da'in kulla si sahmin wa si haramin ويسرا كل ذي تحصيل لو لنا عمرنا سعيدنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل كل ذي سهم وذي هرم ويسرا كل ذي تحصيل نول لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا كل ذي سهم وذي هرم ويسرا كل ذي تعسير asalaamaaleykum wa rahmatulah comme ni ñu ko waxewoon woon sànq léegi rek bi ñuy tàggoo ak yéen tey nag ñu ngi fii si wàññi ba léegi duñ fi jokk ñu ngi ànd ak sunu yaay booy sunu xarit sunu yaay ki nga xam ne moo nekk jëwriñu waañ bi fii ci kër sëñ Cheikh Oumy Mbacké ñu fas yéene toog ak moom waaye nag bu gisee plateau bi tey jii mu xaw a changé ñu toog dañoo waxtaan ak moom waxtaan ak moom li nga xam ne moo waral màggal gi waaye duñ si yem li nga xam ne mooy am si waañu waaye duñ si yem waaye dinañ waxtaan ak sunu yaay digganteem ak sangam bi ak yaakaarañ bi tey ak ëllëg muy sëñ Cheikh Oumy Mbacké nga xam ne képp koo fi gis ku ne rek sëñ Cheikh Oumy defar na la def na si yow loo xam ne foo mën di toog da nga koy di ko tuddoo ginnaaw loolu sama yaay ñu ngi lay siyaare di la jox sa wàccuwaay di la nuyu ñu ngi lay nuyu mama maa ngi leen di fay bu baax ah, te di ndokkeel ci taxawaay bi ak postes bi ngeen am ci kër sëñ Cheikh Oumy Mbacké mu sëriñ Fallou bu ngeen ma laajee ci sëriñ Cheikh Oumy Mbacké sama sëriñ dinaa ci sawar lool Mbacké ndax it nag fanweeri at ak juróom-ñaar du benn bis ma ànd ko moom fanweeri at ak juróom-ñaar ñaar waaw ma ànd koog moom nag yàlla dugal nag mu naam ku nekk nit koo xam ne ku neex a àndal ku gore ko am koo xam ko am kóllëre ba ba may ànd ak moom booba daa moom moom nag mooy borom saa yi di borom baatin macha allah waaye booba tax di jóoragul sa na kon mënoon na maa bàyyi bu yàgg waaye ba nëgg ni sii doom sax du ko tudd te laaj ma tur jok ma cër jox ma kër lu ma maa fi def maa fi dindi macha allah kon nag xale yi nga xam ne ñu ngi doog di dugg ci moom buñ xoolee ci man rek dinañ gën a jàpp bu baax am na ko kóllëre baax na te ku ko xool xam ne sëñ Fallooy baayam sëñ Tubaay maam kon ñu di ko ñaanal yàlla nag taxawaayam bii yàlla suñu borom gën koo yàggal ba lépp lu mu bëgg ci liggéey liggéeyu baayam bi ak maamam sëriñ Tubaay yàlla suñu borom defal ko ko ñu ànd koog moom nag ak mboolem jullit boo xam ne nag yaakaar nga yàlla ak yonte bi sëriñ Tuubaa sant nañ ko bu baax di ko ñaanal waañ wa tamit mi ngi nii dara manqué wut maman bala si waañ parce que yow mi xam naa ne maman yow laa doon wër man maa ngi lay commencé bëgg di la fan sax. dama xam nga xam nga tey ma ma déggee ni ngay waxee. dinaa soor a dugg ak si yow. démb suñu Cheikh Oumy. comme ku ne xam na ne. àdduna balaa neex. day naqari. te mën naa ne yow mii si démb suñu Cheikh Oumy fekk nga ko. bëggoon naa nga ñëwal ma si. dibi màggal yu njëkk yi ni kër gi daan demee avant tey xam nga tey ku ne xam na ne neex na. waaw màggal gu njëkk gi. ba ñëw. digg saako soble laa andi woon ak digg saako pombiteer ah. reer na añ nañ ci reer ci ah. ma naa ko waa sëñ bi Mbàkke yow lu yow nga naan kasu jab lan mooy kasu rajab man gisuma kenn mun ma loolu sa yoon nekku ci ku nekk sukkër nga koy defee dañ toog fii te daayira te jàng kon tey buñ demee ba masàllaa taali bi bare xaw xam nañ may man xawuma leen ah. ndax ku nekk moom rek xam nga ma ndax changé wu ma ñëpp am nañ fukki jëwrin ak juróom-ñett waaye sëñ Cheikh soxna Daba rek Europe ak fu daayira nekk rek soxna yi nekk fa rek maay seen jëwriñ. Ah, ngeen ne première màggal lan nga indi. man ne la booba daal digg saako soble digg saako pomme de terre ay reer nañ ci ndekki ci. macha kon de léegi moom xanaa moom. tey tey dinaa dinaa def ay fukki cino juróom te du doy. di rey ñaari nag ak ñetti gileem te du doy. dégg nga mun naa ma ko te macha allah dañuy dañuy dog dañuy tibb ba fu mu yem rek ñu jóg dem suñu yoon. maanaam sama démb bu ne day gàcceel sama ëllëg kon moom leer na. loolu moom leer na moom tey sëñ Cheikh moom maas ñëpp du ko bëgg ndax daa bëgg ñëpp sëñ Cheikh boo ko nuyoo tey wax ko sa sant bu ëllëgee jëru nga du ko wax boo ñëw jaaral ko sa sant. xam naa ne ñi may saan min nañ benn kàddu boo xam ne chaque jour dama koy wax si moom mm-hmm. ma man li ma gën a marqué si moom mooy moom ak noo mën di toll ak noo mën di mel soo jàkkaarloog moom bu gisee sikk si yow mm-hmm. ak nit ñi du ñuy bëree bëri bëri fa nga taxaw fa lay te kilifa noonu lay mel mani la moom moom loolu war noonu lay mel gi nga man mii fi mu ne nii su ma ko defee lu ko naqar dina xuloo ba pare dellu àndaat barki dem damay ñëw bu ma fu ma gis nag ak lu mbooloo muy bari bari mu ne ma ñëwal toog fii sama wet sëñ moom macha allah jëyul kenn li mu yor nag mayewu ko da koy jaay li mu yor mayewu ko du lay jaay ndax da lay yaatal ba nga def ni yow moom noonu la mu won la man sëñ Touba sama maam sëñ Fallou sama baay. waaw lu baax sax njëg lay jar ba pare tamit li ma gën a neex si moom mooy. Euh, euh, turu mbàkke mbàkke bi xam nga parfois ñu bëri bëri gis ñu takk ko loo xam ne comme comme maanaam ni ma ko a waxee dañu mel lu koy takk téere quoi di ko tiitaroo moom moom Serigne Fallou mooy sama baay yaakaar naa bokkul si ay tiitaram bokku ci fi mu ne ba ñëwoon fii fi ne nii nii la la nuyoo bu kaf yow ree yow boo demee ba bëgg ko jox cër mu kaf loo xam ne di nga ree mu wan la ne damaa ñëw démb ñu bëgg a toog ci suuf mun ma jógal ci kaw man ko man munoo toog ci kaw may toog ci suuf mun ma ñoo àndoon di toog ci ak sunu pukus kon tey bu ñu ba toog ci sunuy siège du ma toog ci sama wet mu nekk lu rëy ci man te ay kilifa nga toog ki suuf toog jàkkaarloog moom te waxu leen ko kon loolu mooy fàttewuma la yaay sama nit te yaay sama lépp sant mbàkke nag waaye moom boole na ma ci mbàkke bi ci biir xale yi kenn du ni soxna Daba Sarr ñëpp bàjjen jox ma fi cër boo xam ne daal yaakaar naa woon man duma ko am ci kër sëñ Touba waaye ma ne jëndewuma ko kenn xooluma kenn defe naa ne bu sëñ Touba wàccoon dama ko naan sëñ Seex mii la nga ne ko baax nga lool waaye ma mën di ma ko waaw man ne ko nag Mbàkke lu ñu am de yaa ñu ko may waaye na man xoolatuma kenn maa ngi ci moom. bu loolu weesoo maman damay ñëw si état bu waañ bi parce que man moom yaakaar naa ne moom sama xarit bee nga xam ne moom laa àndal c'est la fois muy ñëw màggal waaye dafa jommi. dafa jommi. fexeel ba mu ñëw Kazu Rajab xam nga màggal sax ñëpp dañuy dem ci seen i mbokk ndax màggal ngay daje say mbokk seen ci i kër sëriñ mm. waaye bu doon Kazu Rajab tey fi mu nekk nii moom macha allah duñ lu doy. waaw duñ togg doy si étape bi nga xam ne mooy waañ parce que xam nga ne ku ku wax màggal ku ne wax ne bernde. parce que màggal gi mm. sëñ Tuubaa bernde la si njëkk a jiital. kon tey jii tey suñu fii mm. du yoon ñu dugg fii ba génn te waxuñu si li nga xam ne moo jëm si wàllu bernde bi si wàllu waañ bi te yow yaay jëloon waañ bi tey ñu bëggoon xam nan ngeen uh, kii waañ bi maanaam si waañ bi seen seen kii nan nan seen plan waañ bi nan nan ngeen ko defee. maanaam suñu comportement ci biir waañ ak nan la ñuy doxalee suñu waañ mooy maanaam dara manqué wu fi bu dee ndawal da ngay def ba wàññi ne lii ëpp na li fi nekk yi dañuy defar ba desal ñi nga xam ne tey jii bu ci kanamee tuuti da ngay ñëw pël yeeg ñëpp a ñëw ku ci nekk sa soble nga fi sa yàpp nga fi sa ceeba nga fi lépp ma jox la nga dem waaw li ma gën a jaaxal tamit loolu si la bokk mm. parce que sànq léegi si suba bi ma yewoo xam nga man si kër gi laa fanaan bi ma yewoo sànq dama gis foofu sànq ngeen saam ay saam ñu dëkkandoo yi mu dëkkal ñëpp ku ne dafa yóbbu yàpp yàpp gileem yàpp nag jox leen mm. te de jën yi day yóbbu kër yëpp lay jox ay jën léegi dara bàyyi doomu aadama yi mm. dafa yóbbu yàpp dina yóbbu jën dina séddale ay yàpp dina séddale ay ceeb dina séddale ay ndox dina séddale ay boisson ki ñu ko wër ñëpp waa kër sëñ Fallou sëñ Cheikh léegi dara bàyyi kenn kon de xanaa la sëñ Serigne Touba doon wax naan man moom sama man moom yàlla daa dogal ba amoo poche lépp lépp lu lépp lu ma yor su ma ñëwee jaam ñee ko yor waaye yaakaar naane kon don don na loolu si maamam ju tedd ji amul poche barke borom Touba amul poche bañ naa ko bu ma demee marché bu demee marché man ko sëñ bi dañ man def naa ci nangam nangam mënu ma saako bu taxawee te defoo ci dara mu daanu da ngay lekk bu suudi naan bi maa ne loo ci def am na loo ci def rek dagan na ndax ba mu fi amul woon yaa fi nekk kon de xanaa man de Mbacke li ma koy ñaan rek xam naa ne man na ko te yow mii xam naa ne mën nga ko xam naa ne man nga ko parce que yaakaar naa si keppaaram nga yoroo balaa diwoon bala ma may ma soxna su baax Mbacke nga xam ne fooy ñëw dama koy ma wax la nag moom de mi ngi xam nga te teel a laay waxtu ñëpp dañ koy dégg te taali bañ koy dégg moo jàkkaarloog man ne ma soxna daba ma ne ko Mbacke mun ma giñ naa ko ci Modou Fadal Mbacke loo ñaan ma waaw kon xam naa bala maa dem di nga ma sànni ñaan ñaanu ñaan moom ndaw see ma nekkal ci waañ ba ah. lépp lu ko métti muy ci doomam muy ci lu mu mën na ñoo soxna daba ah. soxna daba nag mënu dara rek sëñ Fallou rek sukkandiku hmm. moom ci boppam moo gën a sëñ Cheikh ñaanal ma mënu ma sa waa ji man ko kan mënu ma sëñ Fallou ah ginnaaw bi loolu weesoo suñu télé bi nga xam ne mooy Salam Vision hmm. nga xam ne ku nga xam ne umiyee yi yëpp xam nañ ko mu nekk télé boo xam ne ma naa ne sëñ Cheikh umiyee ko tax a jóg hmm. tey ji boo amoon yenn kàddu yoo ciy sànni ak kàddu ñaan ak kàddu cant yi. lan nga leen di wax. xanaa nag bëgg nag. Mm-hmm. ndax kër yi bari na. kër yi Mbàkke Mbàkke yi bari na. Mm-hmm. ngeen taamu kër seen Seex Umi Mbàkke mm-hmm. andi seen tele du xool lan moo fi xew ci lu baax lan moo fi am te xam ne ak yokkale ci yéen waaye doon wàññeeku ci yéen dina dem ba ay télé télé ngeen koy def ay pàcc nga xam ne da ngeen di yeble ci kër yi ñuy dem ndax benn bi rek du doy ci yéen barke sëñ Fallou Mbàkke yow mii ko waxit di nga am jabar ju la déggal déggal sa ndey déggal say waaju nekk Baay Fall jur doom yi tekki nag te am barke. Ah, ah. barke sëñ Fall kon sama cameraman yaa ngi dégg lool noonu. Cheikh Mouhamadul Fadel. Ah, ah ak sa kon kay ñaan gi egsi na. fi ma ko waxee moo ci yoor-yoor bi nag. fi ñu ñaqee. waaw fii de moom lu fi waay ñaan kon nag mu ngoogu nag kon nag daal. dem dund ba baawaan yéen ñëpp. kenn xam naa ba sama ñaan nangu parce que ñi a dama leen a bëgg a njëkk na xewal yëpp baawaan rek. ba ngeen ah. xam ne ku lebal sëñ Tuubaa mu fay ku ko lebal ker. mu ah. fay la guddi. Ah, kon am na ko mën na ko. am na ko mën na ko kon nag yàlla na ko def. kon kon yow a caméra kon yow sama caméraman moo xam yow mi nga xam ne yow yow amee siraan tamit. li nga bëgg. te di ko sàkku. soxna si toog mm. nga xam ne xale maam du taxawaalu ci njaboot ak Cheikh Mouhamadul Fadil la bokk lu mu ñaan mu nangu dékkal ñaan gi mu lay ñaanal te xam ne day dal xam naa ne sa sa sama. ñun ñaan ñu yàgg koog sunu sëriñ nag muy jiitu ñu topp ci moom nag te ànd koog wér. Mhm. ak wér rek mboolem julli ci barke Seydina Mouhamed yonent bu tedd bi. waaw kon maman ñu ngi lay jaajëfal. waaw jërë ngeen jëf nekk leen ci jàmm yàlla na yàlla def jàmm lépp yàlla neex. ñu ñëwee ci bisimilah rahmaani rahim yàlla nañ ko ñibbi ci alhamdulilah rabbil alamin te sëñ Touba mi woote nañ ko sant la yàlla yàlla nañ bokk ci ngay sant bay fecc allahumma amin mm. aca kon sama gars yi gis ngeen gis ngeen ko tey ñu ngi woon fii nii ànd ak sama yaay booy ak sama xarit neex a waxtaanal lool nag la ilaha illallah yaram na la ilaha illallah la ilaha رجال لا إلا لو نبال لنيان يرمني فال كرب دولي فال فانجفي نبال لنيان فال يرمني كرب دولي فال فانجفي ni ma lan la ñaan yërmande yaaram bayu mi mbaake yaay falilu ni ma lan la ñaan yërmande bayu mi mbaake yaay falilu fu sa waay ne xam nga ko amoori jaaga fu waay ne xam nga ko aboori jaal ba fu waay ne xam nga ko Oumy Mbacké Falilu jàmbaar ja fu waay ne xam nga ko maa jàmbaar ja yaanu moom ma gën a woor maa leen di moom ñun ñoo ne yaanu moom Mbacké bal la dundal Cheikh Oumy Mbacké yaay Falilu dundal yaa nu moom bokkewul maa leen di moom ñun ñoo Balla yaa ci nu moom dénkaane ka nga wóolu gambu dagoo day ànd ak woon gam gambu dagoo day ànd ak woolu maam seera fa aboori jaaba yaa boole ummi Mbàkke Falliloo jàmbaar ja la illallah laa ilaaha illallah may ni baax soni leer ba mu feeñ ci bite Cheikh Oumy Mbacké yaay Fallilu may ni baax soni leer ba mu feeñ ci bite Cheikh Oumy Mbacké Fallilu yaa moom gaa noo fu la nekk nga jëmenoo aboori jaal ba aboori jaal koy woowe aboori jaal koy woowe aboori jaal ba la aboori jaal ba teel naa jàng alxuraan ko biiram biti yàlla may ko muy jàng ak a jàngale taalif balaa nga xam-xam yëpp nekk aarif dem na ba jeexal xam-xam sariya nekk salmaasi te amul tariix mu ne yeggul ci yàlla man la yeggale mu listixaar ñu wan ko mbar may seddale lii ñu ko may ba julli waat ci ko moog waa këram bat bi ca daal waa ju ko weddi laa yaram leeram gi sar na asamaaw ba jàbbaroo ba jaxasoo buur yàlla daw root yoolam ba yàlla ci yàlla boole te du yoon ñu suñu ndab yëpp moom doole fal baabu laay ummi Mbàkke Fallilu awa ka day layal ku rendi sandarma te nga noo layal ba Yàlla fallu te mulkeek malakoon ngay fanaani di majjal ci malaakay jàbbaroo wër ko sax di sabbal ummi Mbàkke Fallilu jamaal awa ka day layal ku rendi sandarma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 ndax doo jàmbur si kër gi ab ndongo nga comme ñii si kër gi bu ma waxee nga wax Omar Gueye wax benn wax ji rek la sëñ bi wax na sëñ di joxe na euh, kàddu euh, joxe na joxe joxe na liggéey bi si ndigalu euh, sëñ Fallou kon sëñ bi tontu kon lépp mën na yal nañ ko teewe ay at sabarka Cheikhul Khadim sëñ bi bég nañ lool yal na yàlla guddal sa fan si kàddu ndongo yëpp ak kàddu soxna aji ndax sim kilifa la wante ndongo la si biir si biir si biir si biir liggéey bi kon yal na yàlla yokk xéwale lam bëgg suñ njaboot gi yàlla na ko suñ borom defal si barke sëñ Fallou kon du jël kàddu bi jox ko Omar mu sànni si kàddu alhamdulilah Mbacke dañuy santaat yàlla bu baax li ñuy wax yow rek lañ koy seedeel li ñuy santaatee yàlla olof dafay wax euh, Cheikh Bakri wax na ko léegi ku yokkul da ngaa wàññi te ñun yëg nañ yokkute dëgg la ci yow dëgg la ci yaa aji dëgg la ci njaboot gi waaye ci ñun rek sax dañoo yëg yokkute bu wér a wér yaa ji nag du ñu wax ci moom lu bari ndax lu ñuy wax ci moom rek ci ñun lañ koy delloo si dama ko wax réunion bërki démb bi ñu teegooyee du def dara te diisoowu ceeg ñun loolu nag da koo neex su ko neexool lu mu xàcc dóor te na ci am ndam ndax am na ci sa ndigal te am na ci tamit ak bëgg wax naa ko ko li muy def taw féex la ñi ci des nag mooy suñu jëwrin yi Cheikh Bakary jëwrin As sëñ Modou sëñ Fallou ba ci ñoom xale yi lépp rek ànd bi rafet na dafa am benn wax booy wax mu doon wax ju am solo mbooloo ñoruma booloo doon benn moo ma ñor te ci say wax ci say jëf lépp noonu ngay defee ñun te yow li nga mujjee wax rek mooy dëgg suñ defee nii rek noppal la te ñun ñëpp sa ndoflaay rek la ñuy wër kon ñun ñëpp lii rek moo ñu war yaa ji yal na yàlla gën a dolli yal na yàlla gën a yokk lii ngay def ñun nga koy defal ndax lii ngay def da mel ni danga ngaa dajji suñu xol yi xool ko ndax lii rek lañu ñu bëgg ñun bu ñu sañoon fu mu mënti doon ci àdduna kër maam Cheikh Oumy jiit ndax nit ku nekk ak la nga am te ñun amuñu fenn fii rek lañu am kon encore une fois jërëjëf yàlla na yàlla fay jazakumullah salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ñoo ngi nuyoo bu baax a baax tey sant yàlla bu baax a baax ci biñ defee sa bëgg ndax bu ñu sañoon loo bëgg ba ba ba bëgg ko ci ñun buñ ko yëgee def ko rawatina it bi nga bëggee lu baax ci ñun te loolu nga mas a bëgg ci njaboot gi ñun xam nañ ni nga mel ci ak njaboot xam nañ ne man de dama naan sëñ Fall de bari la na lool waaye ñun de kiñ ci am ñeetaane wuñ ci kenn ndax lu mat a am am na ko lu mat a defit def na ko dama naan ñun soxla wuñ fenn lenn wuti wuñ fenn lenn ndax ki ñu am doy nañu sëkk xooluñu fenn euh, njaboot gi nag ni nga ko waxee bu dee man kaddu gi may waxe kaddu Serigne Fallou ndax moo fi suñu kilifa ndax noonu nga ñu mas di joxañ lu ñuy wax danga naan sëñ Fallou moo jiitu ku ci topp topp ci mboolem lu mën a doon sëñ Fallou laa ci jiital tàgge boo gis nag am na jàppal di ni ko waxee léegi. kër gi sunu yaay ji moo fi nekk muy Soxna fay Faye euh, yàlla yàlla dafa dogal comme ni nga ko waxee man mii su ma naan ab taaw dama naan man maay ab taawam mhm. ndax yàlla moo dogal loolu ndax bi may def doom booba yàlla dogal dogalu mu ñëw ci kër gi kon bu yàlla dogalee mu ñëw ci kër gi def ma yaay kon dama naan maay ab doomam ji nga xam ne mooy Baye Laat dama naan man adduna lu mën a xew ci adduna man ak kenn mënuñoo tàqale ndax li ñu bokk bokkuma ko soxnaa ji li ñu bokk day deret te dafa foor moo waral day mel ne ñaare ñaare sax Baye Fall yi dañ ñuy jaawale ndax ku ko xool gis ma ku ma xool gis ko maanaam loolu day wane ne dunu dunu ñaar kenn lañ te sëriñ bi loolu la bëgg ci njaboot gi day bëgg njaboot gépp doon benn ndax ni ko jëwrin Omar waxe maanaam moom toujours ci ay waxam danaan mbooloo ñoruma booloo moo ma ñor ndax lii maye mbooloo bu dee bu dee xijaaba dama naan am na ko bu dee bu dee bayra la dama naan am na ko waaye nag dafa am lu ko ñor ci mbooloo bari nag ñu sànq ñoo xam ne mbooloo leen sànq moom nag li muy def mooy dafay defar am mbooloo bëgg ñu mbooloo booloo ci lan booloo ci ànd liggéeyal yàlla booloo ci ànd jaamu yàlla booloo ci ànd liggéeyal Sëriñ Tuubaa te loolee rek la boole kër këram gii boo fi ñëwee koo gis ab taalibe la jàpp boppam ci biir kër gi loole nag moom aw doxinam la ndax loole loolu la sëriñ Fallou doxe ci kër sëñ Touba ba am ci lu kenn amut moom miit bu demee bañ koy tudd ci kër sëñ Fallou naan Baye Fallou sëñ Fallou aw doxinam la te mboolem njaboot gi yëpp moom la ñu roy ci loolu lii nag day teraanga teraanga dañ naan bët nit bu defee dara jërëjëf wàññiwu ci dara soxnaa ji jërëjëf jëf ji sant nañ ci gërëm nañ ci rawatina lii nga def mënoon ngoo ko def ni ko jëwrin Omar waxee te du jaar ci suñuy loxo te boo ko defee jox ko sëñ bi sëñ bi jël ko yëg ko bu la gërëmee tonawu nga far force ndax ab taalibe bu ko ab sëriñam gërëmee far force day tonawu te boo liggéeyee sab sëriñ ba mu gërëm la nag alhamdulilah rek moo ca war a topp kon nag sëriñ bi nga ñaanal ñu ci sa barke li nga bëgg ci ñun ñun xamuñ ko yow yaa ko xam waaye xam nañ ne lu baax rek nga bëgg ci ñun xam nañ ne it boo ñu ñaanalee dinañ mucc lépp luy kare waaye yàlla nañu saytaane seexlu nag ba man ci suñuy jëf dara waaye yàlla nañu saytaane seexlu it ba du man ci suñ diggante dara te xam naa ne boo ñu ko dogalee dinañ ko am rawatina bis bii nga xam ne Cheikh amat Bamba lu mu am ci la ko am ndax keroog ba mu ko wootee ci njaareem dane bis bi kat saa su masaana yegg si natt bu toll ne bañ ma tegoon dinañ ma ko teg waaye tey suñ borom nee na ma gërëm nañ la dara dootu la dalati kon nag moo waral mu woote cant gii moom rek nit lañ gis muy dem ci am nattu di di di di sant yàlla kon nag buñ demee ba ñun ñu ci jëf as tuut ba ko yëg loolee alhamdulilah rek lañ war a wax te jëf ji sëriñ bi yëg na ko kon alhamdulilah ñun ñu ko fekkee kon nga ñaanal ñu rek mbàkke mboolem ku ko fekkee ak ku am yéene fekk ko yokk ba yëg ko ni ma ko waxee léegi ci biir baas bi jëf ji bu doon lu mbooloo def la bu déwénee yàlla ko kenn def waaye rawatina it moom moo ko dogu def ko ànd koog ñi ko àndal ñi ñu tuddoon léegi eh, soxna Ndeye Gueye doomam moo ci jiitu di sa doom ak soxna maam Diarra soxna maam Bousso ak ñoom ndaw ak ñëpp ak sunu rakk yi nga xamante ni bii ne moom la ñu bokkal kër gi te sëñ Fallou sëñ Fallou di suñ mag jiite ko ñun ñëpp ci ànd liggéey bi noonu la ko sëriñ bi bëggee ni ko sëriñ bi bëggee nag noonu lay amee daa nga ñu wax naan du nu ngeen bëgge noonu mooy am waaye ni ma bëgg mooy am kon yow li nga bëgg farfos day am alhamdulilah jërëjëf Mbacke la ilaha illallah yaram la ilaha illallah la ilaha illallah amori ja la ilaha illallah ni bala la ñaan yermane fan keram do faal fan jafe ni balal la ñaan faal yërmande këram doole faal fan jafe ni balal la ñaan yërmande yaaram bayu mi mbaake yaay falilo falilo fu sa waay ne xam nga ko aboori jaaga fu sa waay ne xam nga ko aboori jaaga fu sa waay ne xam nga ko omi Mbàkke falilo jàmbaar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 gam bu dëggoo day ànd ak gam gam bu dëggoo day ànd ak maam seera faa boori jaal yaa nu boole ummi Mbàkke Falilu jàmbaar ja la ilaha illallah la may ni baax soni leer ba mu feeñ ci bite Cheikh Oumy Mbacké yaay Fallilo may ni ba soni leer ba mu feeñ ci bite Cheikh Oumy Mbacké Fallilo yaa mu moom noo fu la nekkaay nga jëme noo aboori jaal ba aboori jaal ba lamp lañ koy aboori jaal ba lamp lañ koy woowe aboori jaal ba lamp aboori jaal ba teel naa jàng alxuraan mokkal tafsir ko biiram bitu yàlla may ko muy jàng ak a jàngale ak di balaa nga xam-xam yëpp ku nekk aarif dem na ba jeexal xam-xam sariya nekk salmaasi te amul tariix mu ne yeggul ci yàlla man la yeggale mu listixaar ñu wan ko mbar may seddale lii ñu ko may ba julliwaat ci ko moo ko waa bët bi ca daal waaju ko weddi laa yaram leeram gi sar na asamaaw ba jàbbaroo ba jaxasoo buur yàlla daw si leen root yoolam ba yàlla nañ ci yàlla boole te du yoon ñu suñu ndab moom doole faal baabu laay baabul jannate faal baabu laay baabul jannate faal baabu laay baabil jannate faal baabu laay baabil jannate awa kaada i layal ku rendi sandarma te man nga noo layal ba Yàlla ca mulkeeg malakoon ngay fanaani di majjal ci malaakay jàbbaroo wër ko sax di sabbal moom i bàgge baliloo jàmbaar ja avocat day layal ku ren di sandarma te man nga noo loyal ba yàlla far ca mulkeeg malakoon ngay fanaani di ma jaal ci malaakay jàbbaroo war ko sax di sa baal yaa nu moom a gën di moom ñun ñoo ne yaay ki nu moom sukk nañ taraam nañu tuub nañ tuubati nañ tudd nañ yàlla jébbalu nañ ci ummi Màkke Falliloo sa jàmbaar ja wax bu doon xaalis noppi doon wurus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 bul nangu ku la xee bul nangu ku la doyadal bul nangu ku la ñàkkal fayda li yëpp li la koy may mooy sàmm sa diine sàmm sa ngor sàmm sa diggante ak sa borom ku la boole bu mu xam sa bëggee ku la man bu mu xam loo ragal ku la yeb bu mu xam sa mën a kaf bañ la man la yeb la nit ku baax ku ne war na koo bañ bu sa jeexee dootoo jomb dara bu sa xol yàqoo dootoo am bu rafet ci kenn nañu jooyante sunu bopp jublu yàlla te bàyyi gaa baax yi ngeen di yàq ginnaaw ba ak sa kañu rendi Ousmane dellu jam faaroox rey ko tuumaan ko jàpp Marwaan ma sooke ya déglu leen ma gaawaan yow nan kër ga arbayiina yow maa watis ka tan lii doy na fecci war maa kenn musta gis nañu rey Abdullahi dañ ko sëlëm dog booba woor na la yow mal jamal di àjjuma toj nañ ba tub càmmoñ ba bis ba ja ñu toj ba tub ndeyjoor ba muhammadun ababakar sadiq rayam wajar na waaju nekk yu ray nañ ko wat ko sànni ci santaar ya taxañ jafal boole ko himmaarun Aliou nay doonoon jàmbaar ja Abo Useyn wal Asan yaakaar ja bañam yaray nañ ko ci koofa ngir weddi yàlla gaañi rob ko foofa famille julee fajar la ibnu jam fab jaar si bettu ko daa di koy jam seetalu seenu yow mu asura nañ ko rey ca néegi Karbala nun yaa ma yor bopp ba gannaaw bu dee naa làmmiñ wa naan seeyax la muusina seetal asan nun ya dañ tooke mu daal di faatu soxna saa sooke ñoo tooke saa dellu tooke baaxin dellu tooke seydi laabi diina taaxin sotum rasulallahi maasal kaasimiina ganeefu ko am ngor ci doomi yaasim tar neegam ci kawam ci bagdaat tej ko ay at baat ba mel ni ak raat Musa Rasulullah Musa La ilaha illallah La na ma ngir bañ diine bisira la dem Madina fanaan na jim xuntu ci ay doj ànd ak Babacar lu nekk muy daj fab nañ ko ko ci biir sarwaan jox nañ ko tooke teewu ko doy kéemaan bisub keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak fallaxi mocce ko xayru naasi bisum keroog la yàlla daaneel keefar yëkkati lislaam li day na tiitar yàlla ñu yàlla boole ci yoolam baam bi jaayi seydina muhammad rasulalaay Ousmane Ousmane ah yéen ay professionnel ngeen man sunu kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu di sëriñ taxa mi nga xam ne tey moo toog jotaayu Seexul Xadim di ko siyaar bu baax a baax a baax a baax tey ñaan jotaayam bi yàgg yàlla def ci kiimaan ci jotaayam lu mus a defal kenn te barkeel liggéeyam te sëñ Tuubaa nangu ko te bokkook moom te lu nu ko ñaanal lu ne rek lu nu yéene la wax ko ndax nit ki boo ko xamul doo ko mën a yéene loolu lu baax boo ko miinu tam doo ko mën a yéene waaye moom nag ko ko miin da nga ko yéene lu baax kon yàlla na fi yàlla bàyyi tan bokkoo ak moom di nuyu sunu kilifa nu nit Serigne Abo moom Cheikh Mamadou Fadal di ko jaarale ci sëriñ Bassirou Mbacké mi jaar ween kër gi ak Serigne Abdou Fatah mi yor kaddu gi euh, ja Mbaye euh, ci ci ba boppam dafa wax ne sunu baaje di moom moom rek la noonu buñ ko amutoon tam danañ ko wuti waaye nag am nañ ko loolu la wax de waaye mu ci moom nag dana maa fekkee 1945 sama mag ju baax ji ba mu demee man man yàlla dogal man maa fi nekk tey la wax boo fi nekkee nag moo tax ma man tam ma am yéene ci yéen nag ndax nit laa koo xam ni ngottuma la wax dana nit ku nit laa xam ne ko xam ne yàlla dogal na ngortuma te moom kat ña fenk ña féete penku dañoo am kiiraay noonu ñu féete soow tam am nañ kiiraay kiiraay boobu nag laa bëgg nañ mu ñëw ñu yërlu nag muy magal gii mu daal di koy woote dëkk fi ñu daa wax fii sëñ Modou Bousso Dieng dëkk ñànk la tuddoon fi la ko njëkk woote moo indi bis bi tey daana wax naan nag woote yomb na waaye ko woote yàlla nañ la wuy si waaye ko ñu wuy si yàlla nga xam loolu doyoon nee nag moom lim leen doyoo mooy santale ko yàlla la waxoon te nit ki boo ko dee santale ko ñëw ba ca moom fa mu fa mu dëkk nga fekk ko fa kon loolu moo fi indi nit ñi nit ñi nag jàmbaar lañu bañ leen wooyee ñëw nañu jamono ji fii mu toll ko ko xam danga xam ne neexut waaye yàlla jeexalu dara ginnaaw ñëw nañu nag li ñuy ñaan noon te sañ koo ñaan mooy suñu kilifa yàlla nañ fi yàgg waaye noonu dongo yi tamit nag yàlla nañ fi yàgg te am lu dañ def suñ poche yi ba di ci mën a joxe addi la ca des nag moom sañu jox kenn digal waaye danañ xam ne suñ bopp rek liñ ci jéem li ñuy bëgg a dim liñ bëgg a dimbalee suñ mën taxaw mooy jub te nangoo jaamu ci yàlla buñ ko defee rek mën nañ ko dimbale waaw jànq loolu mooy li ma doon laaj rek ci bis bi lu laa ci xam taxaw man loo ci tegaat yoor yor nag xam nga yàlla sàkk yor yor sànq guddi lam ca namm kenn du ca xam dara maa mi tamit lam ca nam kenn du ko xam waaye lañ nañ daje ngërëmul sëriñ bi loolu daal ñaan ñaan nañ ko ci yor yor gi noonu waaye nag doo xam ginnaaw yor-yor day am timis di am ngoon am te noonu màggal la ñuy def fi mu ne du yor-yor gi la ñuy màggal noonu dañuy màggal la ñuy màggal nag mooy moom loolee mu bëggoon rek sant yàlla di fas fii ba suba rek di togg ka yàq fii ba suba ngir teraanga ndax lim na defal mënuñu koo fay waaye danañ ko sant la yàlla de loola moo indi bis bi nag kon ñu ngi leen di sant yéen i nag te xam ne seen i kilifa yi leen yabal mat ngeen ko leen mën ngeen a yabal ndax nit boo amee yar rek lu ne mën na ko am. te nit ñi amuñu jot ñi li ci des nag mooy bokk yaa ngi nii dongo yaa ngi ni jëwlin yaa ngi nii toog xanaa du buñ ci xamee dal te ñoom sànni ko ci rek bisimilah. noo ngi nuyu ñëpp rek di leen siyaar baax a baax di bal ñu pàq bal ñu di ñaan baax sëñ Seexu Mbàkke moom sëriñ Faliilu suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naar yim naaral sëriñ bi suñu borom eggal lépp maanaam bu sëriñ bi xasee wax amatuñ yenn kàddu yuñ ciy teg lu may yeesalaat suñuy njëbbal suñuy pas-pas ak suñuy kóodite ak suñu yaakaar tam ci sëriñ bi bis bi itam lépp luñ ci mën a def rek di bokk di ñaanal sëriñ bi rek kanu ci war suñu borom yàggal ko fi ndax ak dundam am na njëriñ lool ak dundam léppam njëriñ la kon yal na ko suñu borom yaakaar yal na ko suñu borom yàggal te ko ñi ñëpp lii doon moonu ko def eh, ki def li la doon nag loolu itam mënta toog ngay wax dara ci moom waaye li def tal duñ ko sant waaye sañ nañ koo ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral màggal gi tam amuñu lu luñ ciy wax lu mooy lim wax rek noonu rek la demee waaye moom daal moom rek la ñuy sant moom di ñaan si dara ji bis bi sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko teggali bépp yéen si barkeb Serigne Falilou kon dañuy jox suñ gàññi. Ah, alhamdulilah ñoo ngi bu baax di julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu wa tey seede ni Cheikhul Khadim Khadim Rasoul amul morom kenn la jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba Khadim Rasoul li tax nag ñi sant yàlla mooy woote bi seexul Khadim mu woote te Serigne bi wax ko léegi te di ko faral di wax ci kàddoom bariwut de wala néew na de ku ko wax kaa leen sant le ma yàlla te sant ak yàlla nag njariñ képp nekk ci ndax yàlla moo ne su ngeen bëggee yokk te sant leen ma su ngeen ma santee dinaa leen dolli kon ndeke cheikhul xadim ak yokkute rek la bëggoon ci ñun loolu moo waraloon mu bëgg ñu jàng alxuraan ñu jàngal ñu xam-xam suñu noppee ñu tarbiya ñu su ko defee ñu mën a jariñu fii jariñu fa la ñu jëm ñaanal maam Cheikh Oumy Mbacke suñu borom yàggal ko saxal ko te wéral ko ñu nde xamuñu te fekkeewuñu Cheikh du faadal moom la ñu xam moom la ñu fekkeel te lépp lu ñuy wax ci Cheikh du faadal suñu gëstoo gis ko ci moom kon balay sa yàggal wéral di nuyu di sant suñuy jëwriñ suñuy kilifa ñoom ñëpp rek sans exception ku lim doo matal ñaan nag yàgg ko teewee yàgg ko teewee te yàgg ko ànd ak wér yàgg ko ànd ak xéewal yàgg ko ànd ak tawféex te yàgg ko fee fekk te léppam di mat salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum bu ngeen gisee ma jël kàddu ndax naru ma woon jël kàddu mais ak cant moom cant rek la la mën a doon kon ñu nga sant sëriñ bi bu wér a wér muy alaay Cheikh Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadal ndax mooy suñu sëriñ Touba mooy suñu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke ndax ba ñu ba ñuy ànd ak moom di kas di di di liggéeyal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke lu yàgg la. te dara mu see yàqu jëmm ji doon wax muy sëñ Modou Ba moo jiitu woon liggéey bi fii kon bu yàlla dogalee ren mu ñëw euh, màggal si jóge Espagne ñëw fekk màggal gi kon ak tawféex la mu ñëw yéen ñu yor si di ñëw fii tommi kon ak sant yàlla la ndax ñu ngi sant alaay Cheikh Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fall daa wax na ko nee na nu mu mel sëriñ bi la te léppam da koo jox sëriñ bi ndax buñ santee ñëpp jaarale ko si moom sant sant sant na mbooloo mi yëpp jawriñ Omar moo doon wax léegi mu jiita Baye Fall sëñ Bakary Diouf mu ngi nii di doon taalibe si biir kër gi kon ñu ngi sant yëpp di yéen ñii di leen sant naar yow El ak si biir ñëw fii léegi te te te soxna si jiite jiite ji ak ñoom saam kon ñu ngi leen sant bu baax a baax yan nañ ko teew ay at képp ku fi ñëw yitte goo fi ne yal na yal na saafaro si barka Cheikhul Khadim bég nañ wasalaamaaleykum wa rahmatullah amin amin amin amin amin amin

مريم فوت المخينا عند الذي لم يدرك كن فيكون لك خير رسول للانتقاد وبك فزازتها ولم يكن بالبشر لم يفعل عند المؤمنين كونك بالمحسن يا أمة خير المحسن معصومة من شرك يا غدوني للمدكين मान के फाल घर के फोसे बे बे से मोरे के कुलाता गए kontaan naa de lu ngeen mën a wax man de jaaxle dara leen yàlla def jàmm yàlla def leen kontaan naa téléphone téléphone bi adhéré tuuti waaw

très bien bi. yow xoolal xoolal ah toogal ma ko toogal maanaam benn tëb bu fekkee ñoo bokk fépp soxna sa nga toog. def nañu nii. xale yi xale yu ndaw yi as Diouf ñoom booba ñoo fi bokk nekk waaye Fama boo demee moo moo doonoon suñu intellectuel intellectuel xam ngeen booba Fama la ñu ne fi ba yàlla dogal <coughs> lu tax si fii ñu nekkaat fi di ko def kon nag dañuy ñaan ñii ñu ko daan ñu ñu ñu fekkee ko ay déwén déwén am na loo xam ne nag day feeñ ci bët waaye am na loo xam ne du feeñ moom man li may yëg sama digganteeg ñoom duma leen ko seereel du ma ko seereel ku yàlla bi yàlla laa koy seereel mhm. fi ma jaar ak seen ndey jaar fee nag maamam kii ko ndeyam ji ko jur te bu ma ci amee dara nag man mbàkkee tax ma am ko moo tax ma xam leen waaye faama fee moo ma ko tëral di ci jataay be nga xam ne sëñ Falloo ko moom xam naa ne du fa du du ma ne am na ñu ko fa gën ñu bari de waaye nit ku baax tëdd na fa de barkeem yàlla na ko yàlla wàcc ci yéen man daal li nga xam ne moom laa leen digal ku ci mag moom la yàlla dogal mooy mooy kilifa gi muy Abdou Aziz def leen ko seen ndey gisu leen seen baay gisu leen seen ndey moom ngeen gis man daal bu ngeen dee wéy ci sama ndigal lu mu leen wax ngeen def ko lu mu leen tere ngeen bàkk la ca dolli ko nag mooy galas Mbàkke mee <coughs> sëñ Fallu lu xew ci seen kër ak lu man a xew ci mbooloo mii boo ngeen ko gisee mel na man ngeen gis mu jeex am na loo xam ne mënatuma ko te du ma ko def ndax nit mënut a toll ci ñaar fukki atam di dox ba am juróom benn fukki at la doon dox di ko doxaat te amul njaboot loolu du ma ko mënati galas gaañaa ngi nii lii lañ fi indi muy teraanga ñu yàgg dañ koy indi nag yéen fi ne sëñ Modou mooy dox ci seen diggante di mas rek yeeg ñoom luñ fa war a def bu dee sëy nga takki bu dee ngénte nga dem ngénte ji nit day dema dem ba yàgg nag day am morom man doon tuma seen morom seen morom a nga ne dégg li ci def nag ñaan la am ñaan mooy wéeteeg sama kurus naa ñaanal seen day ñaanal leen waaye na ngeen takkoo te wóolante te wó te yaakaarante tey waxtaan jamono dafa toll foo xam ne ku yabu nag wut ab ab ab wut pexe pexe mooy di diisoo di bokk di dajale da ngeen am kenn kon lu mu am génne ko ngeen di def falata farataa xew de waaye dala xewatu loolu farata li ci des nag ngeen góor góorlu jigéen ñi ci seen kër nag samay samay samay goro lañu ñu man faa ma nekk fi maa fa ne na ngeen leen di yiir te yërëm leen ngir yàlla kenn du yor jigéen nag ngir bànneex loolu jeex na ci àdduna mhm. danga leen yor ngir yàlla rek mhm. kon su ngeen demee ngeen góor góorlu te fas yéenee ral ne wala seen yaay kenn ku ci amut jikko ci yéen ñi amut ay séeréer ngeen waaye kenn ku ne bootoon na la jaarale fam na war a jaarale yar la la nga ne mu jàpp ca ba tey nga mën a taxaw kon nag yàlla na leen yàlla taxaw te yàlla defal leen jàmm sama xol seet na guyu yàlla na leen yàlla defal jàmm te seen yaay maam Mbàkke ngeen di ko jàppale di ko nemmiku bu ngeen toogee ba mu yàgg bu ngeen amee seen weccet dee leen ko ko yonnee fee mu amet lu ngeen am te man ko faa dimbale bu dee néeg bu dee bu dee bu dee seesub douche bu dee bu dee absence bu dee rëbina soxla na ko te yéene ko ko war a defal kon nag ñu ngi ñaan ci Sëñ Tuubaa yàlla na leen yàlla defal jàmm man nag duma leen sànni duma leen wàcc duma leen maye man ànd ak yéen nag boo leen gisee danaa leen seet si boo leen gisul danaa leen seet si yal na yàlla def jàmm ju bare bare rek kontaan nañu amin amin amin Mbacke amin barke Cheikhul Khadim amin Mbacke Sëriñ Tuubaa de buntu Jolof ah. bàyyi laay ba bàyyi ah, laaj bëgg Ndakaar laaji Lamine maa jël tuuti yaa may ah, kenn ko beru amul kenn ko beru amul kenn ku dafa nekk fi di kap xeet yoon bi waaye namoon naa leen nag wallaay ñoo la raw buñ kontaan dañu lay waxtaane ba keroog ñuy agsi alaaji Lamine sang bu mel ne sëñ Cheikh Oumy yombul boo ko séenee boo ne ko jàkk sa xol bi dafay day leer ba pare nga ko ma nga rax ci ñeme ko ci zaayir te baatin bi fees del bu na agsee ci kër gi boo ree rek nu kontaan te it nag léeg-léeg nga tëdd ci sa biir kër wala nga nekk ci leneen mu ne la carte téléphone waaye yow mais loolu loolu nag dëgg-dëgg loolu yomb naa ajoo dëgg-dëgg euh, sëñ Fallooy sama baay ak cër bi la yàlla jox waaye daal dëgg-dëgg fexe nga daal yow ba wàcc yow su nu ñëwee nga jox nu njëgu Bambey nee na ah njëgu Bambey day tuute teew loolu rek lay waxanteeg nu ah njëgu Bambey baa ngi fi de mi ngi nii rek day tuute teew demul fenn Mbakke yàlla yàlla guddal sa fan waaw. Mm-hmm. waaw. bu njëkk. ak léegi ak léegi. waaw kenn ñemewu ko woon. waaye léegi laa léegi. bari nañu ko yàq. waaw. déedéet loolu da yàlla dogal mu dox dox lu baax ba noppi ñu seen ku muy hmm. nañ ko géewal ba xam lu nañ loolu de xalaatuñu ko mbay nun daal na nun daal fexe nañ daal ba mu rafet waaye xaman daal sunu sëriñ nga sunu xarit sunu soppe ngi itam sëkër kër gii sunu fi wàccee nun fii rek fii la nooñee fee lan daan dugg fee ci ruq ñu defal nu euh, dëgg-dëgg añu beru géwal léeg-léeg sax dina am ay pël yu ñu wax fexe ba dugg fa waaye dañ leen di bàyyi nu añ rek mbàkki jërëjëf alaaji Modou Mbaye xanaa ñu sant yàlla julli cont bi cheikh sang bii nga xam te ni mooy déemu cheikh Falilou Mbacké man nag bëggoon naa ci moom naka jekk mm. waaye ren dafa yokk mm. ndax yàggul matul ñaari weer wala ñetti weer dama dem gànjool gëm a dëkk ci kër Baddo Fara Ndiaye mm. ñu ni ma sëriñ Cheikh Oumy ñëw na fi man leen sëriñ ban ñu ni Cheikh man leen sama wëllëla la yàlla dogal keroog mbubb mu fekk ma sol mooy grand mbubb bu la ba ma bi bi mu joxoon fii keroog te ngeen bàyyi ko man man leen déet man mi déet déet déet déet bu leen yàq wax bi sëriñ bi man daaw ayoo ma daaw de ayoo ma daaw de daawaati jéeg la ayoo man daawaati wala di jéeg la ayoo waaw aya na fi ñaar yoon ñeenti yoon xam suñu kaw ah rabal baag yeneen waaw bon maaye waaye ban ah bi daal yaay seet ki neexul sëriñ bi maaye yaaye neexul eh, maaye neexul yaaye neex Tiijaan fu muy ah. wuyul ah, sama soppee moom la sol ca waaw man mi ma mi ma mayoon xamatuma sax. <laughs> waaw ah kay ah, ah, ah. xam ne ñoru leen ñoru leen ñoru man sama dama koy sàncee ba nëgën. sa bopp dama koy sàncee ba nëgën. yow Adji a jox. rek bu tànn na Adji Marème tànn. ah <laughs> aji ma ne far na aji ma ne far na aji ma ne far na far na ñun nag ñun nag far nañu way ah rabal bi kii jox mu jox ko rabal maa jox mbubb na ko waaw mu ah, teg kon ma ma na këram sëriñ bi def ma jox loo ma jox rabal ah, da nga ne rabal bi du ma la ko jox mu waaw waaw kon ku am kon ku am waaw déet après nga jëli si waat kan kan am. du man de. moo eh, eh, ah, def ma xoolal yow ma loolu boo ko defee day dellu ci tamit. <laughs> sama ñu ko d'accord. sëriñ bi nangu ñay wax bul jël lii bul jël lii. sëriñ bi woon keneen woon keneen woon keneen. bul jël lii bul jël lii. waaw léegi balay sa. El Hadj Modou Mbaye Garmi El Hadj Lamine. maam ci kontaante ñaari yoon bi ma xale yi ne sëriñ um cheikh mu def fi ñëw dama leen sama wëllëree sama xarit mbubb mi ma sol ci moom laa ko jëlee xale yi ni ma am na fi kër ma ngi leen gaaw leen ci ci lu ngeen ci def naa ko yëg te maa ngi leen nit ñaan bu oh, bi sëriñ bi ñëwee na ngeen fex bu ma yëg bu ma fekkee ndakaaru sax woo leen ma bu ma fekkee ndakaaru gànjul laa yendu si kon balay sa ñu nga la fay dalal te place ba dafa yiw dafa rafet foofa dex gaa ngi sa kanam da taxaw ci place da taxaw ci kër gi jano dex gi loolu maa nga ca de fa soble nawe karot man maa pon tool ñi ma géwal yi ma daan àndal maa leen mënoon dama amoon tool sa sang bi sama benn xarit lañu ñu nommé gouverneur jibaka dem ministre euh, ministre affaire euh, ministre éducation national jëlee ko gouverneur bi mu nekkoon yóbbu ko jox ko jox jox ko directeur Crous Saint-Louis boobu université Saint-Louis moo ko ubbi. sama xaat woo boobu wutal ma décision yóbbu ma Ndakaaru man loolu tax ma bàyyi loolu tax ma bàyyi foofa tool yooyu waaye maa ci mënoon Saliou Ramaka nekkoon na gouverneur sama xarita takk may jaane doomu njool jaane Saliou Ramaka waaw njool jaane wi gaañu bu yàggul doomu bi ñu naan may. ak ak ak euh, camiñam bi tudd Dame Diané ah wax na dëgg dafa xam ni maa dafa xam ne dafa xam ne maa yor yi fii dafa Tidiane xoolal sang bi eh <laughs> daal balaay sa dañuy ñëw di ziar di la ñaanal wér Modou Mbaye Modou Mbaye di ko di la ñaanal wér Modou Mbaye wuyu ma ñaanal wér ak allahuma gumu wax yàlla na borom nangu sa bis bii liñ ciy séddale sa maam dikk séddale yàlla boole ci kenn ëppal allahuma salli ala sayyidina alaaji Lamin jërëjëf alaaji texe eh, alaaji Modou Mbaye Garmi ku aye baax na ndax sëriñ bi géej la mbub mi ngi fii jëlee nga tàllal sa loxo mu ñaanal la ci barke baayam Serigne Fallou ak maam Serigne Bamba moo gën mbubu boo fa demee dangay ngay ut ay mbubu dangay ngay jox ay mbubu da jox ay mbubu balay sa ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaare bu baax di ziyaare mbokki taalibe yi ñu fi fekk yëpp di ñaan balay dara xew li sëriñ Bamba sa maam di li ci bis bi yàlla bu la ci kenn ëppale ndax nag buñ nee sëriñ Fallou ci doomam yi kan moo ci sëriñ Fallou nga moo ko gisee rek sa xel dem ci sëriñ Fallou xel yëpp ci yow lay dem balay sa sëriñ Fallou mi ngi fu de mi ngi fépp waaye saal yi nekk ndakaaru yow mi yaa ci dugal sëriñ Fallou journée sëriñ Fallou ca ndakaaru yow rek yaa ko def boole koog ñëpp ci Sénégal autorité yëpp ci Sénégal ñëw nga dalal leen te bu ñu ñëwee du ñu fa wax politique du ñu fa jëf politique Serigne Fallou rek la ñuy wax nga joxe ndigal ni Serigne Cheikh Oumy moomul bis bi bu ko kenn tudd tudd leen Serigne Fallou rek ki tax nag ki nga xew. amal nga ko njukkal bu rëy te sëriñ Fall moo tax nga xew dem na ba wax ni bu leen ma wax doomi sëñ Fallu ne leen ma taalibi sëñ Fallu moom mi mu ànd ak njabootam gi rek foofu dem danañ la ki nuyu sama doom mu sol ja jasneer comme moom toog ñu waxtaan waaye kër sëñ Seex mi rek ngay gis doomam yii ku ci nekk moo la jur ngay sëti sëñ Fallu da ngay laxasaayu kenn du la xam beeg kon bu nee moom taalibe sëriñ Fallu la daanu ko gëm balay sa balay sa ñu ngi lay siyaar tali mag ku ne xamoon na ko fana këram ne tali Icotaf ba jàpp eh, Printemps ba jàpp lef googu yëpp xale ya fa nekkoon ku ne xam nañ leen daan jëfandikoo ku romb ñu agressé la moo nangu li nga xamante ni mooy paaka yi ba remplacé ku këll yi kooku moom mii moo ko def Pikine ga mu dëkk autorité jox na ko cër de sëriñ jox na ko cër taalib yëpp jox nañ ko cër waaye moom li ko gënal mooy képp ku fa ñëw nga ñaan ci barke sëriñ Fallou yàlla faj sa ajo te nag man gunge naa fa ñu bëri ñuy ut àdduna booy dee laajal Amadou Diarra Pikine ci histoire Pikine moom rek mooy maire bu dem élection ñu gagné ko mu delluwaat élection gagné te bi mu ñëwee sëñ fa sëñ seex mi daf ko ne ko jëlal sama kaala gi kaala gi lay campagne ba campagne bi jeex nee na dewuma fu bari ndax sëñ seex umi moo ma ci néegam ni mam ndam li jox naa la ko booba nag dafa gañe am nu mu defoon ñu dem ñu gañe ko ñu ni ko delluwaatal sëñ seex umi fa pal gi nekk maa fekk le police book maa fekk loolu maa fekk lépp barki de keroog biñ koy jaale si fii ñu ànd ak sëñ euh, euh, euh, Ablaye Timbo maire Pikine ñu fii lañ toog ñu ànd ak délégation boo xam ne lu mag fukki oto ak juróom képp koy ak seen di autorité ñëw nga jaale si ko bisu ajjuma mu ñu def cortège koo waa jëm jumaa ja ñun ñëpp mu dugal ñu ci mimbar bi suñu digganteeg imam bi des amul maître ma ne ko ah, balay sa alaaxira it nii la de da ngay ànd ak ku nu ruus mbaa nu ruus la mbaa nga ruus ñu ànd ak béréb jaar béréb sëriñ bunt bi ubbi béréb sëriñ Tuubaa ñu dugg ñuy ndax barabu sëñ Fall dafa nekkoon ci ci ci travaux mu ne déet bu leen dem kuy xalam nag di ca jaay sëñ Fall loo ngi ni nan dem ñu bëri la bunt bi ñu dugg loolu bëgg na Sénégal yëpp bëgg na réew mi ndax sëriñ Fallou baayam sëriñam ñëpp ko am ndax boo jaaxlee moom ngay waate soo jaaxlee moom ngay ñaane waaye nag képp ku dëkk ci pikin mbaa ci banlieue bi sëñ Cheikh Oumy bu la gisee dalay teg teg ca kaw kon Mbàkke ñu ngi lay ziar di la gërëm ci bis bi di la ñaanal yàlla ci bis bi di ñaan sa doom yii nga xamante nii sëriñ Fallooy seen maam ci bi yër waaye ñu jaay loolu yëpp ñu leen ñu di ñaan yàlla na ngeen àgg ni yoon Mbàkke ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen baay bii day li ko war yëpp ci sëriñ Fallou def na ko wax ji nag mi ngi bëgg a gudd te eh, ku wax lépp ñu dab la waaye daal sëriñ bi yàlla nga gudd fan lool yàlla nga gudd fan lool yàlla na nga wér lool yàlla na nga wér lool yàlla na la fi yàgg fekk li sëriñ Touba sab maam di séddale ci bis bi yàlla bu la ci kenn ëppale jërëjëf sëñ Cheikh mi sagal nga yoon wi sagal nga sëriñ bi sagal nga taalibe waaye sagal nga waa Ndakaaru waaye sagal nga waa Pikine ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla may la gudd fan yàlla may la wér di nuyu nag sama jigéen soxna Fatou Faye di euh, soxna Aji Faye di ko nuyu bu baax ndax baayam bëri na ñoo xamante ni nii ci Pikine topp nañ ci yoonu Serigne Bamba Alaaji Serigne Faye leen ko def moo njëkk nekk représentant Xaadimu Rasuul ci Pikine Alaaji Serigne fay baayam waaw mbàkk mbàkk bu mos ñëw Pikine kër baayam ngay dal kon yàlla na sax aji aji aji Faye ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal yàlla loo am ak sëñ bi ak lu mu am feneen yal na ko yàlla barkeel allahumma salli ala sayyidina muhammad alaaji lamin danaa ma toogee ba ma ba ma toogee ba mu yàgg la yàgg rek sama xel dana fi ma defal koy xol ku bari xolam waaw te doon seen te seen kilifa waaw fu ngeen mas a ànd ngeen mas a ànd rek bu ngeen naa ngeen ne ñëw yàlla na nu fi yàlla bàyyi la mu waroon a eggaleel ñu eggaleel ko ak li ñu war a eggale ci barke mag ñu baax ñi mag ñi daal kenn bëriwut waaye li fi ñoo ko moom sunuy baay la woon ak sunuy baay doon sunuy maam ak sunuy maam noo fi des noonu fexe mu rafet rek te lii koy eggale rek bisimilah jàll leen ci biir man xaajani ilay bidraaki naajeytu yaa basir yaa wali kafaytani jiblisa dem nga jeewali daaru salaam tuuba daaru liman اللهم يا قدوس صل وسلم وبارك على من نويت بخدمتك لوجهك الكريم في طوبى وفي دار السلام وفي دار وفي دار قدوس فرأ السلام والمنام كفي الخباح أنه الجنان يخوض لأجب في الدارين رب وراج خدود في الخيار دام ذلك والخلام يوما وبهداه كفل الخالد الخوما أنباءني العليم والخبير وكان إي والوسيم والكبير رددت بعد بخبلة والجميلة تحت سيده أجانب قلبي الغفران ما تاسف أو أبروها يا يخوض بالمن والقلل عاد بخط يرسم دلل خلبني مخلب القلوب مختارني وانخاني مدامي دين يهب الله والمسافر مستثنيا بسبيحة الفيل تكتب وجل بحكمة أهل مع الأمير والأمير لا أمير وجهت لله كتابتي سبيل وخاد لي خير الألام والفنون سألتهم وإنه المنام ترجى كاس الجنان يا من مدار والخطوبة min mi tànnalal minaa aatu yàlla yaa saboo asi yaa xudaas yaa man lahu takbir wa takbir sundaaraka dahra an randaari yaa baahiyan kawni til jidaari akka salaamu innaka almanaamu rahmaanu yaa rahiimu yaa anaamu bismin ilaaya بلا من ونسير حمدا بربا خير المربى حضر بخلدا لو شكرت بلا كفار وهو بصير بالانفتاح لو اقترب بالعبد ربي لو خطاب ما ابتداي لك هدايا لك سناهل لك تجاي ما ابتداي يا منصفى doo ko defee gerte doo ko defee gerte dana ko sekk dalee ko. ngir ko jël ndax la وابل غرورا أبل نصورا ما تكاي كل الجوالا يؤمن كمالا يا من تعالى أنزل جاي ذكر قضايا قدايا لبريدايا دون استكاي يا خير مهند أنا بما عليه أسوه بلا خلاص لك سكارة عندك يا يا سنخسارة بلا جلاله يا من كفاني يا من سخاني يا من أماني عن الخلايا أنت مرادا أنت إمامي نور فؤادي يا زكي كذا دائما كنت جنابي بلا كأب ولا أبا يا خير ما ما تنايا ما بسايا وحد سماي أنت أبيبي يا من أبيبي لا يرابي ولا كناي yaa xira maay yaa xira raay yaa xira maay لكن بلاها مع الأنعام أيام طرقها حقا للخيرات مع البناء لكن أجساد كما تمساب وبعد ما تكلم الأيام حرف وادي أمد يادي بالمدلاء وكيف أهيد معلم خيان ومعلم خيان للخلاء يا جولاني بلا الإباني إلها إباني يا جلال يا أهل البريد يا أهل البريد مجهد البريد مع الشكاي مع الرسائل مؤمن الفداي وخذ المناصب فدى الأفاي نعم الأبيباو نعم الخريبو نعم الأبيب ما يصبر مع المساج مد الفتاة مد المعاش صلاة السنة صلاة الجوك تاكو ساني تاكو ساني مكة من يوم سما خارج كبر في هاي لا لا لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله إله إلا الله أبو رجال لا إله إلا الله نبال لا نيان يرمني فان كرب دولي فان فان جفي نبال لا نيان فان يرمني borom doole faal fam jafe ndimbalal la ñaan yërmande yaaram bayu mi mbaake yaay falilu ndimbalal la ñaan yërmande bayu mi mbaake yaay falilu fu sa waay ne xam nga ko aboori jaaga fu sa waay ne xam nga ko aboori jaaga fu sa waay fu sa waay ne xam nga ko maa jàmbaar yaanu moom ma gën a woor faal maa leen di moom ñoo ne yaanu moom Mbacké balla du doon Cheikh mi Mbàkke yaay Falilu dundoon yaa nu moom bokkewul ak maa leen moom ñun ñoo ne Mbàkke Balla yaay ci nu moom dénkaane ka nga wóolu gambu dagoo day ànd ak gambu dagoo day ànd ak maam seera faa boori jaal yaa nu booleeg ummi Mbàkke Fallilu jàmbaar ja la la ilaha illallah may ni baax leer ba mu feeñ ci Cheikh Oumy Mbacké Fallilo yaa mu moom kaa yilif noo fu la nekk nga jëme noo aboori jaal ba aboori jaal ba lamp lañ koy woo aboori jaal ba lamp lañ koy woo aboori jaal ba lamp lañ koy woo maam seera faal kàngam la aboori jaal ba teel naa jàng alxuraan mokkal tafsir ko biir ak biti may ko muy jàng ak a jàngale di taalif balaa nga xam-xam yëpp nekk aarif dem na ba jeexal xam-xam sariya nekk salmaasi te amul tariix mu ne yeggul ci yàlla man la yeggale mu listixaar ñu wan ko mbar may seddale lii ñu ko may ba julli waaju ko moo waa këram bat bi ca daal waaju ko weddi laa yaram leeram gi na asamaaw ba jàbbaroo ba jaxasoo buur yàlla daw root yoo lamba yàlla nañ ci yàlla boole toddeel ñu suñu ndab yëpp moom doole faal baabu laay baabul jannate faal baabu laay baabul jannate faal baabu laay baabil jannate fal baabu laay baabil jannate ummi Mbàkke Fallilu awa kaada i layal ku rendi sandarma te man nga noo layal ba Yàlla fallu te mulke malakoon ngay fanaani di majjal ci malaaka yi jàbbaroo war ko sa di sabbal ummi Mbàkke Fallilu jamaar avocat day layal ku ren di sandarma te man nga noo loyal ba yàlla fal noo ca mun keeg ma la ko fanaani di ma jàll ci malaakay jàbbaroo war ko sax di sa yaa nu moom a gën a woor yaa leen moom ñun ñoo ne Mbacké ki nu moom sukk nañ taraar nañu tuub nañ tuubati nañ tudd nañ yàlla jébbalu nañ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 bul nangu ku la xeeb bul nangu ku la doyadal bul nangu ku la ñàkkal fayda li yëpp li la koy may mooy sàmm sa diine sàmm sa ngor sàmm sa diggante ak sa borom ku la boole bu mu xam sa bëggee ku la man bu mu xam loo ragal ku la yeb bu mu xam sa mën a kaf bañ la man la yeb la nit ku ne war na koo bañ bu sa jeexee dootoo jomb dara bu sa xol yàqoo dootoo am xalaat bu rafet ci kenn nañu jooyante sunu bopp jubli yàlla te bàyyi gaa yu baax yi ngeen di yàq ginnaaw rasulallah ak sadiq lañu rendi Ousmane dellu jam faaroox rey nañ ko tuumaan ko jàpp Marwaan ma soog ca mbir ya déglu leen ma yeen gaawaan jaw naan kër ga arbayiina yow maa watis ka tan lii doy na fecci war maa kenn musta gis nañu rey Abdullahi dañ ko salam dog booba woor na laay yow mal jamal di ajuma toj nañ ba tub càmmoñ ba bis ba ja def ñu toj ba tub ndeyjoor ba muhammadun ababakar sadiq rayam wajar na waaju nekk yuux ray nañ ko wat ko sànni ci santaar ya taxañ jafal boole kook himmaarun Aliou nay dara ma doonoon jàmbaar ja Abou wal Assane yaakaar ja bañam yaray nañ ko ca koofa ngir weddi yàlla gaañi rob ko foofa famille julee fajar la im nu jam fab jaar si bettu ko di koy jam seetal Ousseynou yow mu asura nañ ko rey ca néegi noon yaa nga yor bopp ba gannaaw bu dee naa làmmiñ wa naan la mu seetal asan noon ya dañ tooke mu daal di faatu soxna saa ko sooke ñoo tooke saa di dellu tooke baaxil dellu tooke seydi la abidina taaxil sotum rasulallahi mazal kasimina ganeefu ko am ngor doomi yaasim tar nañ ci kawam ci bagdaat tëj ko La ilaha illallah La ilaha illallah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 Isa Rasulullaay nun yaa ko génne Makka ngir bañ diina bisi dem Madina fanaan na jim xuntu fanaan na ci ay doj ànd ak Babakar lu nekk muy daj fab nañ ko ko ci biir sarwaam jox nañ ko tooke teewu ko doy kéemaan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 am xalaat bu rafet ci kenn nañu jooyante sunu bopp jubli yàlla te bàyyi gaa yu baax ngeen di yàq ginnaaw rasulallah ak sadiq